sur la toile, je l'ai dit tantôt, l'une des plus belles voix de la musique africaine actuellement elle déchire, elle cartonne, macha allah ñu ngi koy féliciter davantage ndax yaram gi na ci moom e est vraiment euh, euh, euh, koo xam ni sénégalais yëpp a ko bëggal seen bopp ndax ni mu mel ni mu mel nag li ko waral moom mooy encadrement bu baax moom mooy staff bu baax ndax artiste bu ne yaa ngi ñaan am staff bu baax am encadrement bu baax kon nag looloo ko indi tay fi mu ne waaye itam talentam bi nga xam ne kenn natable ko Sénégal koo wax mu ne la jëy la macha allah yàlla ko yàlla lafal cat mu nuyu la abonnés ak téléspectateurs yi nga xam ne ñoom itam ñu ngi toog seen kër di seetaan. waaw maa ngi lay nuyu di jë xëcca baax baax di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi ñuy seetaan di nuyu waa Sénégal te di am tamit contentement bu rëy rëy bokk ak yow plateau bi. di nuyu sama xarit sama lépp Baye Assane mi fi jógee wax dëgg mu nekk nit koo xam ne man moom dañoo yàgg tey mhm. di am contentement bu rëy rëy mu wax ci yow itam lu rafet macha allah mais booy taay taay taay de wax nañ la ko yow. <laughs> xam nga lu kenn lu kenn dul wax maa la koy wax xam nga man gars yi dañuy ne fii di kii waa jëy laa man yooyu man man ak moom amul loolu mais temps yi ma ne xaalis bee ngi dugg de. dafa war a dugg de. <laughs> mais dafa war a dugg. ay <laughs> ayja ñu am plaisir en tout cas ànd ak moom à chaque fois euh, gis ngeen ko bu ñëwee fii elle est un peu ouverte ndaxte xam na ni këram la ñëw et que euh, il est elle est avec euh, son frère kon nag day neex ci yéen ñi nga xam ni yéen a ngi toog seen kër di jàkkaarloog ñu tey ñu nar a waxtaan ek moom lu bari waaye lu yaatu itam bokk na ci titre bu njëkk bi nga xam ne actuellement Sénégal nga nekk la première personne la première véritablement artiste bi nga xam ni en deux semaines am nga plus de deux millions cent première au Sénégal ñu la ciy félicité d'abord euh, euh, di la wax. Euh, merci beaucoup félicitations li leen doon xaar ci suñu musique musique boo xam ni wax dëgg yàlla du ñu toog bàyyi un mois di am un million de vues artistes yi ñu ci bari un mois lañ daan toog pour am un million de vues moom en une semaine elle a eu un million deux semaines donc ñu koy ñaanal une très bonne suite de carrière déjà ci li ni mel. on te félicite davantage est-ce que tu attendais un tel succès par rapport nga xam ni moom moo di Sénégal jigéenu àddina bi yëpp. waaw bon Kheucha comme ni nga ko waxee d'abord damay sant yàlla bu baax xam ni yombul nga nekk xale bu ndaw te ba nga ñëwee tamit ci milieu bi yàggul dara wax dëgg donc dañ koy sante yàlla et que delloo njukkal sénégalais yi ndax mën naa ni lépp ñoom la ñoo ma def ni ma mel mm-hmm. waa waa te xaaroon naa ko tamit xaaroon naa ko parce que man dama nekk nit koo xam ne dama am gëm-gëm boo xam ne fa jéggi dayoo mm-hmm. lépp lu may def dama ciy xaar résultat boo xam ne bu macha allah mm-hmm. yàlla def nag mu génn yàlla def ci sutura wax dëgg comme ni ma la ko waxee rek mu génn ñëpp bëgg ko. Mm-hmm. mu doon lu neex loo mm-hmm. xamante ne lu spécial la c'est pas une première euh, je l'ai dit yàgg nga yëngal boo xoolee Dieyla euh, Gérard foog nga un peu reculer un petit peu bokk ci jeu bi yow itam ndax foog ñu euh, lancer waale les œuvres yi nga xam ni moom jot na ko passé bokk na ci dee ko woyofal moom tam mi ngi toll ci million millions 700 vues en 3 mois je l'ai dit artistes ku ci daan def titre da nga yàkkamti mois bi jot nga am 1 million yow laa ci trois mois euh, euh, de ko woyofal également am huit million trois cent et quelques vues c'est quoi véritablement pour les Sénégalais qui regardent et les jeunes artistes yi nga xamante ne ñu ngi toog seen kër DJ là c'est quoi véritablement ton secret quoi wax nga wax ma secret xaja bàyyi ma mën naa ne amul secret àdduna moom lépp looy def danga dafay ànd gëm-gëm rek ak liggéey man sama secret liggéey rek la wax dëgg fu ma toll damay liggéey et que damay li nga xam ne moo neex sénégalais yi ma koy def liggéey rek moom solo donc luñ liggéey doyul secret bi liggéey rek la bokk na ci ndaanaan gi mu doon moom mooy liggéey gëm boppam waaye mën wayam itam ndaxte nit mën nga gëm liggéey mën nga gëm sa bopp waaye bu fekkee ne amoo lu ne ci yow euh, di nga am dara waaye du bari moom nag li mu am ni peut-être talent bi ko yàlla may euh, moo tax mu am ko Grégoire yow xam nga ni dangay bokk ci yëf yi donc lan nga réserver tey euh, ki nga xam ne moom moo di Dieyla ci lu njëkk ndeysaan ku ko dundul du ko seede dafay fiir loo waxoon ci way wi loo ci wayoon loo ci wayoon vas-y mbëggeel ni mu neexee ku ko dundul du ko seede dafay féexal xol dalay wan yoon nga xam fi nga féete bu dee turbinalu loo bëgg naa àtte ma tëj ma ci sa xol nangu naa li ma wana tax ma dëddu sama àdduna penu miin a bëgg naa ndeysaan maa ngi running running xëca running ngir gis la I wanna stay all day by your side mm, dameel bëgg naa la sama xëca bëgg naa naa la fasal nga ma samay bu mu xool amoore su ma la xamul woon dof laay doon kontaan naa ci euh, way wi nga xamante ni way na ma ko déjà sama way la bi moom xam naa ni leus xaw ma foo toog waaye dinaa la ko jox nga ma ko dégg nga maa ngi lay kontaane sama xarit bi euh, borom wakaam di ko nuyu <laughs> yaa ngi tooñ de baax na man dama say maandu sama yoon nekk si <laughs> maandu rek maandul ma <laughs> déggal gërëm waa naan ma amoore ah bon duñ la faale Grégoire yow kuy yàq nga une très belle chanson bi nga xam ne moom tam def na lu bari ci sa carrière qu'est-ce que man xëcca mën naa ni way bi su ma koy déglu dafa ma yóbbu fu sore sore wax dëgg neex yàlla mm. à part Dieyla seen Petit la ko nit ñi gënoon xamee ba ma mm. jógee Sen Petit toog naa lu yàgg dew ma fenn yombul woon nag parce que lépp rek bëggoon wane ki ma doon bëgg nit ñi mm. xam kan laa doon donc ma jaar fu nekk jaar ci yeneen compétition ak yeneen studio yàlla def yàlla boole ma ak waa Rock Team Mhm. muy ñoom Chérif ak Diop Sabrin mhm. Linguère nekk bu son boo xam ne dama ko yàgg bëgg daf ma yàgg neex ma ne pourquoi pas duma ko kóova xëy na nag boobu la ko yàlla dogal ma kóova ko wax dëgg neex yàlla fu ma génn mënu moo dégg sax sama tur ah. dammel rek laa doon dégg <laughs> mu nekk loo xam ne dafa nekk way boo xam ne du ma ko eh, fàtte sama àdduna ndax mën naan lépp fa la jugee fa la jugee mhm, fa la jugee fa la lépp tàmbalee li tubaab di wax mangoogu ñu ngi ciy kontaan Grégoire ak lan loo xamante ni euh, réservé nga ko jëy laa tey ñu Oh là là, à chaque fois euh, quand tu parles des euh, quand tu fais une chanson pour les femmes euh, vraiment day touché xol yu bari seetlu nga loolu. waaw lool la loolu c'est normal que man euh, damay ñëw ci son bi dafa nekk son boo xam ne mën naa ne samay way yëpp moo ci gënal. Hmm. Mhm. loo ci wax mën naa ni moo ma ci gënal. jigéen bu ne bëgg na ci dundam ku ko yërëm bëgg na ku koy gunge ci yoon jox ko cërëm bëgg na ku ko wóolu ci lu ñëwagul bëgg na ku ko sàng sutura ndax matul li ma moom dama koy jox góor gu ma faale ku ma réewal teral ma te duñu laale ku mën sagal jigéen góor gu melul ni yéen kuy door ak saaga tax ma soori leen loolu macha allah mu doon way woo xamante ni euh, bari na euh, euh, jàngat ci biir way wi mu doon tem aussi ci biir way wi ndaxte gune gis na léeg-léeg violence faite aux femmes tey nga indiwaat ko ci œuvre en tout cas nous te félicitons sur ça ndaxte moom ay wayam boo ci dégloo rek mën nga ci jëlee leçon Grégoire ci lan ngay ñëwaat ñu xool li nga réserver ki une très belle chanson également mu génn récemment moom tam def bruit def étincelle bii tamit naka la la def xëcca oh, maa ngi baax man daf ma jombal. waaw <laughs> man daf ma jombal fu ma dégg maa ngi baax maa ngi baax <laughs> waaw noonu ak yooyu de. ah mais tamit c'est normal mu def nii mu def parce que. Euh, man damay gis nit ñi dañuy yàqante comme si dañ leen a fay pour ñu yàq nit. te àdduna amul solo xëcca Sénégal lu ñaaw xaju fi. ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi donc na rafet rek. Mm. et que bëri na fi ma koy gis ma ni pourquoi pas du ma ko way nit ñi delloosiwaat seen xel. d'accord waaw ñu bokk ndey bokk bàyyi loolu mën naa ni sax. tey jii nii lim fu bëri moo tax maa ngi baax ba mu génnee def na lu rëy. wax dëgg neex yàlla et man gis naa ne ñi ñi bàyyi nañ ci tamit xel bu baax a baax. ayca naa bàyyi nañ ci xel mangoogu maa ngi baax moom tam toll ci dix millions et quelques vues moom de booy boole ay millions vues moom ah ah macha allah ay ay millions rek bii moom tamit mi ngi ci euh, million dix millions de vues macha allah euh, nous te félicitons sur ce te écart bi barewul ci at euh, génn gi ci trois œuvres xam nga loolu maanaam maa ngi baax mi ngi ci 9 mois euh, bi ñu passé léegi mi ngi ci 3 mois bi doog a génn ngi ci 2 semaines euh, benn at rek wax dëgg yàlla ku la ci joxul artiste number one euh, dafa def lu ko neex rek waaye wax dëgg yàlla yaa ci étincelle yaa ci bruit gré fan ngay ñëwaat ak ñun ñu xool ci ban œuvre la tamit. j'adore j'adore j'adore c'est encore cool dès que woyofal moom tam def étincelle je vais parler un petit peu du producteur ki nga xamante ni tey moom moo produire musique bi Bril 54 gis nañ ni boobu ba tey ngi liggéey ak moom exactement euh, ta relation ak ki nga xam ne moom moo di Bril relation bu bien wax dëgg neex yàlla maa ngi koy nuy de passage Bril mu nekk nit ku baax nit koo xam ne mu ngi def liggéey bu nice liggéey bu rafet ah, wax dëgg Sénégal ñëpp xam ne xam nañ ni ndaanaan la ci li muy def waaw mi ngi def liggéey bu rafet bu nice gis nga mm-hmm. ni daal euh, euh, link nga ak moom da ngay continuer liggéey ak moom wala des fois nga xool yeneen maison de production. yi waaw man maa ngi fépp de. yaa waaw man man maa ngi fépp. Ah, mm. tout le monde. liggéey bi daal pour ñëpp la daal pour ñëpp la yaatu na. Uh-huh. képp koo xam ne da ngay ñëw pour liggéey da ngay ñëw def mu ngi noonu daal. macha allah Dieyla moom Dieyla ñëpp la. ñu gisoon ni def nga benn featuring ak Pape Diouf on attend quelque que dégg naa Wally may na la terrain de waaw loolu dëgg la terrain bi <laughs> ni nga ko waxee maa ngi koy nuyu de passage moom sama papa la sama lépp la. waale wax dëgg waaw sama papa la sama lépp la mu nekk nit ko baax. te nit su la defalee teraanga faaw nga wax ko. waaw ah. yëkkati na terrain may ma ko. nga ni ma mu nekk tamit nit ku baax ah, maa ngi nuyu bu baax a baax waaw. Mhm. waaw man may na la téere ah waaw. Ah, <laughs> kontaan naa macha allah elle le mérite elle le mérite déjà euh, euh, euh, waxuma ko pour dara dama bës a dugg kër Waly yàlla xam na ko dugg fekk ñuy seetaan sa ay clip yow. yàlla xam na ko billahi wallahi mu doon euh, loo xam ni man dama ci am satisfaction ak fierté ndaxte ndaanaan nga nee la kuy waykat fii ci Sénégal jox na la cër waaw ñu wax ko ñu bañ ko wax xale bi nañ ko ñaanal gudd fan euh, te xam ni li nga xam ne moom moo di musique sénégalaise mën na ko yóbbu fu ne à travers belle et douce voix ñu ngi ko ciy remercier encore une fois c'est quoi exactement euh, tey les projets de Dieyla ñu ngi koor euh, gi koor bi rek ah. incha allah. mën nañ leen a indil grand théâtre. non mais il est temps. Hmm? mais mais il est temps Dieyla tu as que des dix millions de vues. des millions de vues <laughs> il est temps. day ñëw sax te day fees deel incha allah yow xam nga loolu. te maa koy présenté waaw yaas du yëkkati dara te du ci dugal xasaa loolu moom ñemew ko. staff bi nga bokk du tey yow yàlla moo ñu boole loolu démb la barki alxuraan barki sëñ Bamba loolu leer na ba pare. que hmm. ñoo ngi waaj tamit ay featuring incha allah. incha allah waaw ñu ngi waaj album. Hmm. ñu ngi waaj et que ñoo ngi liggéey daal bu baax a baax. yàlla ci yàlla man lépp fi may fekk ndax xam nga ni man a yow. Hmm. man ak yow ci ak rek soow la ñu daal. gërëm nag lu la na nga wax. kenn mënul dem bàyyi sa morom mon ami tu peux venir par <laughs> yi ndax moom tamit daf ma indil benn cadeau euh, surprise euh, ci euh, trophée bi ñu jox barki démb xaw ma nag. Ah. ban photo la taamu moom ah. liggéey kat la jàmbaar la moo fi indiloon père El Hadj Ndiaye benn tableau bu mag El Hadj père ni ma kii day ñëw ci kër gi waaw El Hadj Ndiaye da la gërëm léegi nag Euh, euh, laay est-ce que du ma taxaw ni ci kanam ah euh, yow taxawal noonu rek yow doom nday non moom soxlawul moom moom bëggul di wax moom moom murit la nee na moom may waxa ma koy waxal moom maa koy waxal lépp ah mais c'est beau ça kii moom faw nga defal ci jëy laa ak yaas yaas ça c'est beau vraiment c'est beau a ah, ñaar la moo baax de sama xarit bi day defar tableau yi donc da may laalaaleel numéro bi léegi tableau yi bari na de ay waay yi fu ma ko tafee mu rafet di nga ni ma oh là là oh là mais j'adore j'adore vraiment j'adore ces tableaux yi nga xamante ni moom moo koy defar euh, moom mi nga xam ni jeune la boo xam ni dafa mucc ayib itam xaaral ma tegal leen ko nii ngeen gis ko ñaari photo yaa ngoogu euh, c'est beau à voir euh, gis ngeen que ni numéro téléphone bi génneel ma sa numéro 77. 483 18 01 77 483 18 01 77 483 18 01 foo nga defal ci Dieyla ci euh, trophée yi mu am yëpp ci kàttanu yàlla c'est bon kon kon Yaas boo paree rek jëlal numéro moom itam euh, mu defal ci Dieyla c'est tellement beau Saliou la mooy sa TikTok. Euh, Salikhina design 16 ku ko dem ci TikTok am également message ko mu mën la waxtaan ak yow rappelel ma numéro bi pour waa Gambie waxaatal ma déglu. 77 77. four, three, uh, three, one, three, zero and one. that's good. ayca yéen waa Gambie aussi mën ngeen ko woo foofu ci numéro bi gërëm naa la mon ami kontaan ci yow di la kontaanee tableau yi rafet na mucc ayib na lool jëy laa ma bàyyi la nga tàggatoo kaay taxaw ni ñëwal nii ni nii sëñ Saliou mhm. ayca jee looy tàggoo. maa ngi am contentement bu rëy rëy yow moom heure bu ma plateau bi bëri na bagage de da ngay kontaan da ngay kontaan da ngay kontaan waaw heure bu ma lay gis rek damay bëgg parce que sama waay nga yàlla moo ñu boole dëgg la di kontaan naat ci samay soppi xëcaa nu ma mel ñoom la ndeysaan ñoo la ba de xale yi di remercier Yaas moom manager moom tamit mu ngi def liggéey bu doy waar kenn du moom c'est le manager de l'année mi ngi noonu nag kenn du moom bi nekk sama ginnaaw di nuyu waat waa Sénégal mhm. kontaan naa bu baax merci beaucoup et merci d'être venu Dieyla elle se nomme ce fut un plaisir de vous servir amis chers téléspectateurs votre ami et frère merci beaucoup à Saliou euh, design euh, ci tableau bi rafet bi nga xamante ni ca ma kër la jëm euh, ma taf ko benn bi ma yónnee ko sama yaay ca Ndar moom tamit mu taf ko ca këram foofu daal di toj kontaan naa jërëjëf merci beaucoup Diey et à demain inchallah Kheucha merci et passez un excellent ceebu un excellent poulet rôti merci à l'équipe technique ciao si na ñana la nga tàmbaleek fa Leur confrontation au stade d'Olembe a été épique, indécise et digne d'une vraie finale de Coupe d'Afrique. Le Sénégal s'était imposé au bout du suspense. Sadio Mané face à Gabaski. et Pharaon se retrouvent sur la route du mondial en barrage aller et retour. Les pharaons d'Égypte ambitionnent de prendre leur revanche sur leur bourreau de Yaoundé pour composter une quatrième qualification. Mais les lions champions d'Afrique veulent nullement rater le rendez-vous au Qatar, synonyme d'une troisième participation du Sénégal à la Coupe du Monde après et 2018. Sadio et ses coéquipiers veulent donc surfer sur leur sacre de Yaoundé Nous tous derrière les Lions pour relever le défi de la qualification au Mondial 2022. 2STV et ses partenaires sont d'attaque pour accompagner les Lions dans cette dynamique avec trois magazines à vous couper le souffle. Les coulisses du match aller au Caire et du match retour à Diamniadio. Plus un grand plateau débriefing après les deux rencontres. En route vers le Mondial. Vivez ces grands rendez-vous sur la 2STV, la télévision autrement. dușmanul Suliu e de recăpesc